nekone jóge ma fa ndax dama mer question de principe la ba and ànd dañuy ànd pour defar ànd pour suñu intérêt man ci pouvoir la jógee ci pouvoir la jógee man je suis membre fondateur de APR li ma def ci APR ken def ko ci APR té le président dese na ko lu bari mais dama xol lepp ak li ko dese yëpp teewul ma bàyyi ñew kon xoluma suma interpersonnel personnel xooluñu suñu intérêt dañu xol intérêt bo xam moy mooy intérêt commun moom jubóog gis-gis

ça fait des années nous sommes sur le terrain ça fait des années Moi, am plus de 20 ans ans politique donc lu pour défendre. donc mais le choc des ambitions le des ambitions nous avons un problème il n'a jamais été question de discuter quoi que ce soit si affaire intérêt poste ak ce am donc nous faire des choses, cadre nous nous grave. grave, nous fa la toll fa lañ bëgg mu yegg ni mu ndoxee lan mooy sooxe luy problème bi loolu ñu doon discuter ba jubal si cadre si loolu mais mosuñu xaar suñu bopp mosuñu discuter suñu bopp mosuñu xool suñu xaar suñu intérêt personnel Sénégal ku nekk ak fi nga dëkk on parle des communes on parle des locales man personnellement dama interpellé woon président ni que attention président y a président Sénégal mais li xew nii mooy élection locale moo xew locale mooy précis yi ku nekk ak fi nga dëkk ku nekk ak fa gox kon waa Kaolack nañ defar seen gox ñun wa Grand ñu defar suñu gox wa Saint-Louis ñu defar sen gox mënu mënuñu waanee weesuwul nga nek Grand bëgg defar gox goxu Saint-Louis lolu wané la donc moo tax ñu tuddé ka defar sa gox té précis ku nek fi nga nek boko ko defaree mais bala ngay balé buntu kër jàmm da ngay bala ngay balé buntu kër jàmm da ngay balé sa buntu kër bamu mu ku nek balé buntu kër bamu mu mais Sénégal day bax tax ku nek na defal li nga wara defal defar tax ku nek ñu def lu précis ñu def ko tuddee que defar sa gox mu ku nek ak moko nak ndax bañu dem le 25 octobre

génn Sénégal wala génn Grand Yoff depuis des années boo ñëwee doo réer Grand Yoff fi bàyyiwaan moom moom nga fi fekkaat ba léegi loolu normalul soit dañuy jóg leen dañuy bàyyi leen ñoom ñu def leen neex wala ñu jóg jëm ko jël pour def lu baax ci lañ jël initiative jóg pour defar luy offre bi ñu def nag ñun ñoo toog waxtaan ba juboo ndax dëkk nañ ci gox bi xam nañ gox bi ni mu demee xam nañu li fiy metti gis nga fiy metti xam nañ ko fépp ay metti fépp ay mi ngi mel mag bu sukuraat rek

ak seen rak yi ak seen mag yi ñu nekk si gox bi nekk si koñ bi nekk si commune bi xam nañu liy metti te li ñu leen di proposé xam ne moom mooy gën pour commune bi léegi ak pour commune bi dans le futur lu ñu am jàmm moo ñu ko gënal lu ñu am mënoo ne bëgg jàmm sa kër ba di ko bañ si mbedd ñi charte bi képp kuy politique da nga ko a signé ndax jàmm lañu bëgg ñëwuñu pour xooloo pour xeex ñun dañu proposé xel la ñu proposé idée yor idée boo xam xel moo koy xalaat di ko doyuñu xuloo ak xeex réglul benn nekkuñu on a dépassé ce temps on a dépassé période boobu xel lañu yor idée lañu indi wan ko suñu ay frère wan ko suñu ay mbokk wan ko suñu ay nit Sénégal ñëpp ay mbokk lañu buñ fa bëggee xuloo bëgg xeex dañ xeex suñu ay frère dinañ xeex suñu ay ay ay ay mbokk dinañ xeex soxlawuñu loolu ñun jàmm lañuy dox paix boobu nga wax charte boobu ñun dañ ko doxee fii ndax yàgg nañu politique ci ci commune bi bokkuñu camp te duñu xeex duñu xuloo duñu duñu histoire donc li nga xam nga charte boobu signé nañ ko suñu xol d'abord te buñ ko gisee dinañ ko signé parce que ñoo bokk lu ñuy def jàmm la ñuy dox lu ñuy dox ñun soxlawuñu soxlaw ñu soxla violence mooy ñu amul idée ñu soxla violence mooy ñoo xam ne dañ nar a ñàkk ñu bëgg jalgati affaire bi ma ñun soxlawuñu loolu ñun ànd nag suñu xel ànd nag suñu suñu suñu sago tey nañu dal nañu te xam nañ ñi ñuy waxal ñoom jàmm lañu am jàmm lañu bëgg jàmm la ñuy kon charte bi signé nañ ko dabal suñu xol waxtaan nañ sama ak sama grand frère Abdou Diop c'est naturel ba ñuy politique nekk goro président def nañ def nañ li ñu waroon def mosuñu xalaat politique bi affaire goro ndax abla wad ak Karim mo gën dëgër man du ma mbokk Macky Sall mbokk moy mbokk dret wala mbokk bir wala mbokk gagnon amna lu gëna a fort mooy Karim wad ak Abdoulaye wad mbokk tigi mi ngi fofu kon xoluñ affaire mbokk mbokk mak ay mbokkam moy ñu bokkal papa wala ñu bokkal yaay wala ñu bokkal nday ñom ñoo ay mbokkam ñun mbokk par alliance la kon deugul kam mbokk Abdoulaye wad ak Karim te gis nañ fi Abdoulaye wad ak Karim gis nañ fi Jean Paul Dias ak domam gis nañ fi mamay ak papam donc lool bañu and ak Macky dañ ko xam xam nu muy doxee xam jikkoom gis nañ kii war nañ ko mën jàppale mais taxawuñu taxawaayu mbokk ñu def lu ñu war et pourtant 2009 ba 2012 kenn waxuloon Goro Macky Sall Goro mi ngi génn ba ñu ba Macky nekkee président man loolu gondiwu ma dañ koy jàpp dañ ko topp ndax principe dañ koy ànd ak moom dañu ànd ak moom ndax conviction bu ñëwee ba gis suñ conviction yooyu ñu taxoon jàpp ko ba principe yooyu taxoon jàpp ko dañ ko bàyyi ànd ñi nga xam ni nag ñoom la ñu war a àndal parce que mag lañu duñu ay jaaxil xam nañu lu baax ak lu bam duñu ànd ak ñun dañ di xas kenn xasuñu kenn xala buñu kenn bu na ba dem gisu anormal dañuy noppi jël suñu yoon man damay defar sama gox man bokkuma APR ba euh, euh, bokk bëgguma sax wax loo xam ni vraiment en ce li xew daal mooy ñu ngi suñu gox ak frère ànd ak grand frère sumay sœur sumay grande sœur doyen et doyenne ñu ànd des gox et on est présent partout au Sénégal partout au Sénégal on est présent te si jublu daal